قصير عيش يفور بلا دبر بلا عزاء ثرو كثير عيش يفور بلا دبر بلا عزاء ثرو كثير عيش يفور jotee fale kii daal ma daal ma ma ne ko naa ko ba taxawal ko parce que jàpp ni bu jege si la lim sosoon mooy dëgg ndax dëgg rek ay ngi ci àdduna mën na ko amee ñaari jotaay li ci ëpp ay dogal li ci des ay jigéen la waaye loolu li may jëkk liggéeyam seen tubaab yi mu jëm ginnaaw lépp loo xam ne doo ko xam ne boo nekk jigéen da cay gis day loo xam ne loola daay ci biir moo tax ñu dox ba daay nga daal di ci biir ndax moom mooy président daayira bi moo ko jiite mu soxna fan yow sa soxna sos ko ci kanam soxna tey soxna bàyyi nee na maa moo ko jiite loolu la ci ginnaawam lañ topp dana fas mi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla leen ko yàlla defal li nga ñaan yàlla barkeel seen liggéey dafay leen ak teraangay alaxira kenn ku nekk am na koy jot nee na di leen digal rek di soxla sa daan digle mooy ngeen sàkku te rafetal te yéen te a boole seen bopp fi leen waaye di seen faj seen aju seen waa defee ko fi balaa kon nag fépp soxla soo xam ne daal ngeen ko fi bu ngeen doon wax dëgg baax si départ bi na ko ku jiwaat ak wële bu mu a doon bu dee bu mu mën a wax ak bu mu mën a bu mu yëg ak bu mu yëgul bu ronal kër gi jënd balaa ak këram yàlla ko soxla may mën a seetlu ñetti sànni ko ci barke ñoo xam ne dellu ginnaaw ren ñi nag si lu yaram daa xaw a sutante muy soxna Sala Thiam ak soxna Thiam Mbengue nee na sa nopp rek yëpp nga ne mën nañoo saafara Cheikh Ibrahima dafa mas a wéré bi yebal sëñ Mor Talla Fall sëñ Touba na ko boo demee nee ko dama defal saafara sëñ Mor Talla ñëw jàkkaarloo sëñ Touba sëñ Touba la ko ana Cheikh Ibrahima mu ne ko mën a ko moo ma yóbbu woon mu ne ko mën ngaa dellu sëñ bi ma agsee na ñu ne ko ah man man ngaa delloo mais yaa ko xamul saafara ci say bët la def biñ ko xoolee laa wér loolee nag mooy soxna Baye sëñ Maodo soxna si ne nag ba mu déggoo ci noppam rek la son borom la saafara sëñ Saliou daa wax ne yéen maa ngi jafe ci àdduna ndax lu ma ci yëpp ko ci yëpp kon nag lépp lu soxna Baye ko def lu moo fi sëñ Touba ndax moo fi dox toogaayu soxna May moo naan soxna May mu ne mooy jaaxam sëñ Touba kon nag bis bi lépp loo xam ne waaye bëgg na joxe kon damay bàyyi sëñ bi di mu jàng leetar bi ko defee yéen ñëpp ngeen maase tàllal seen loxo fas ki ngeen bëgg ko ñaanee soxna may dana ko patremat gi yu seen liggéey mbooloo mu takk ci tëddikaar indi ko seen maa ngi leen di ñaanal yàlla barkeel seen liggéey te may leen jàmm dafa leen ràggee ak nag àllaxira kenn ku nekk ci yéen la muy sàkk maa ngi gën a koy jarut di leen digal fu ngeen mën di nekk ngeen di sàmm seen diine ak seen te yéen aw yow asalaamaaleykum wa taala wa barakatuh kon yéen ñëpp mën ngeen a loxo te fas li ngeen lu ngeen bëgg rek fas ngeen ko ci li ñu